jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp saa su ci site internet bi di net bi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy doo rek mbër mi di Bathie Ba ñu gën koo xam ci turu Mbeuss nag ñoo ngi koy daal di toppee rek ne dafa nekk ab nervi moom mbër mi nag jamono ji ñuy wax mu ngi ci kanamu doyen des juges moom ci jëmmi boppam rek ginnaaw enquête bi nga xamante ne rek jot nañ ko ubbi nag ci mbirum kii di Jérôme Bandiaky ba nag ni rek ma ngay wéy nag di daal jur ay révélation bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi la mu dal di xamle mbër mi di bàcc ba ñu gën koo xam ci turu mbës dat nañu koy yóbbu ci kanamu doyen des juges ba noppi daal di koy yóbbu ndungu bu ñu ko arrêté nag ci début mois novembre foofa ca division d'investigation criminelle di dikk kii di mbës ñu gën koo xam ci turu bàcc ba moom nag bokkoon ci écrit Boy Niang dat nañu koy yóbbu rek ndungu seen ki ko fa yóbbu di doyen des juges ba tey bu ñu sukkandikoo nag ci ab témoin boo xamante rek fekke woon na na nag mbër mbër mi eh, di mbës nag dafa nekk complice ak kii di Jérôme Bandiaky moom ci jëmi boppam rek la mu dal di xam ne ci kanamu enquêteur bi moom témoignage moom témoignage boobu nee na nag jot na gis kii di Jérôme Bandiaky ak mbës ak Dof Ndeye eh, ñu dem nag ci benn kër boo xamante ne rek dafa siw lool bokkoon nag ci nguur gi ci ab oto yoo xamante ne rek eh, fekk nañ fa ay jaase ak ay pistolet automatique yoo xamante ne rek ci seeni loxo la nekkoon ba tey ci xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañu daal di àddu rek wax ci génn ko àdduna kii di Adja Awa Sall nekk yaay ci Abdoulaye Diouf saar moom nag daal di àdduna ginnaaw ñetti weer képp rek la jot rawante ak jëkkëram bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne rek kawteef ñoom ñoo ko daal di dëggal nag kii di Adja Awa Silla nekkoon yaay ci ex ministre bi di Abdoulaye Diouf Sarr moom moo daal di dëddu àdduna rek niki tey ci suba gi boobule. génn ko àddunaam nag tombel ñetti weer yi nga xamante ne rek eh, ci la jëkkëram dal di làqu doon wuyu ci turu El Hadj nekk papa ci Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne rek ni ki 11 août la daal di dëddu àdduna ni ki tey ji nag kii di yaayam di Adja Awa Sylla moom moo daal di rek dëddu àdduna di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xalal ko aljana jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am xibaar